Boga est venu en compagnie de son avocat, Maître Elas Diouf. Nous sommes venus ensemble. Nous avons été bien reçus par le commandant de la section de recherche, le commandant Meng, avec son staff. Et le commandant a fixé la date d'audition de M. Seydina fal Bouga, Bougazeli, à la date de demain 20 novembre 2019 à 16h. C'est tout ce qu'on peut vous dire pour le moment. Donc demain, monsieur Fall sera entendu. Et la procédure va continuer. Maintenant, on ne peut pas aller plus loin. Parce que l'enquête n'a même pas encore démarré. Donc attendez la fin de l'enquête pour voir comment la procédure va se dérouler, quelle sera la suite à réserver, à donner à cette procédure. Bienvenue à la gendarmerie. pour m'occuper de démission. Mais pour le moment, lui, il ne parlera pas parce qu'il est à la disposition de la justice. Et je ne suis pas venu, moi, parler d'Assemblée nationale. Je suis venu assister devant des gendarmes un citoyen qui a sollicité mes services. Mais une démission d'un député à l'Assemblée, C'est possible. Mais tel n'est pas moi mon rôle. Mon rôle n'est pas de parler de l'Assemblée nationale. Quand avocats ont voulu se constituer et vont se constituer d'ailleurs effectivement pour M. Sedina Fall Bougazeli. Mais pour le moment, tous ces avocats sont autour de M. Eladjouf qui coordonne. Donc il y donc la défense de monsieur euh, Sedina Fall Bouga. aw na gën dëkk bi or que yooyu ñu doon wax maa ngi Dakar man ma ngi Dakar information yëpp maa ngi ko suivre Dakar gii am loo xamee ni en tant que journaliste du ko def parce que presse dañu nekk loo xamee ni euh, si j'étais à Touba même bi may dem euh, euh, j'ai informé euh, tout mon entourage parce que bi ma génnee automatique je suis mouride ndongal Serigne Saliou bu nattu daloo sama kaw damay dellu sa cosaan la ma dem naa Touba siyaare Serigne Touba siyaare sëriñ Fallou siyaare sëriñ Moustapha dem ci sëriñ Saliou dellu ci Cheikh Béthio ci le même jour la nuit laa ñibbisi effectivement waa brigade de recherche lu ñuy wax dëgg la bu ñu ma localisé maa ngi Touba Touba laa fayee sama téléphone mais ci le même jour laa ñibbisi dakaar la ma fekk tous les documents bi ma njëkkee daaneel dama demoon aux États-Unis faju ji maa ngi ci diabétique euh, euh, brigade de recherche wala tribunal ou bien kaso taxul ma daw yoota aw ma loo xamee ni dinaa ko tiit sama àdduna lu dul damaa tooñ te man lii dal sama kaw xam naa lan la no c'est-à-dire bu rëy am na ci boo xamee ni lu leer la complot bu rëy am na ci boo xamee ni bu leer na non du ma taxal opposition parce que je suis un musulman du ma wax lu ma wóorut te du ma tooñ mais xam naa ni complot am na ci te xam naa ki ma ko def waaye ki ma ko def nag bàyyi naa ko yàlla. waa démission bi loolu après comme li bu ci eggee loolu danañ dana leen si wax après lu leer nañ bu subaa incha allah. ma der bu laajee bu ma ma démissionné mooy tax sama der set wala mu laaj ma démissionné mooy tax justice def liggéeyam ma laaj bu laajee ma démissionné moo tax du ma gêner le président Macky Sall danaa ko def parce que.